asalaamaaleykum. ci leen yéen ah. bi lépp jàmm. yow yow yow kii mooy góor a or. góor a or a ngi nii. yow kii xam naa ko. barki yonent bi mi ngi nii. kii daa gisoon keroog bu kër maa ko doon di nëpp na ba. ku fi takk or laa la moo ko takkat original laa la yow. waaye nit a lëndëm waay. ndew nit a lëndëm ngeen keroog ku nekk fàtte nga ko di ci oto ba la wane. <laughs> yow ko sama nit nga da baax si man te tey jii bu may dem feneen balaa may dem feneen fii laay jiitoo wala jaay dafa ni looy daax teewul mu jëm àll daax ko mu jëm ci kër ga rek leen yow eh ñii tey dama leen fekkoon ñu doon reyante kii daanaka war a xoon na kee alaaj yow laay waxal waaw waaw waaw moom mii lekkoon na kii ba pare ñuy coow coowal or man leen or Sénégal ba mu daj kenn rek laa ko ci wóor muy alaaji góor óor nekk fii ci jàmm gën côté Fallou Warga caaroy caaroy caaroy la ca fii caaroy la caaroy côté Fallou Warga lu nii la xoolal kii kii di mel ni nitu àll ah dama jabar la boo xam ne kii mu na ma. xam nga ne déglu rek góor a déglu ma xoolal na a moom moo ma sëñal moom mu ñëw. soo jëlee doo am or noppi de foofu foofu sonal ko. ok alaaji ngi nii kii lii war na dañ xam nga ni sunu maam yi sax takkatul lii. dégg dégg waaw kay. problème bi nga xam nga lan la góor. kay kii. sama soxna la maa ko takk farata si yàlla sunna Muhammad waaye man sama doole bëriwul hmm. ku ne xam na ni tabaski bii nii borom kër yëpp xar na nuy xën moom mu génn ci biti rek ñëw ne ma dafa daja benn si ndaw mu takk or dana dem ci góor or léegi man man bu ma na laay mën a jëndee or fi mu toll nii te te te te amaguma xar déedéet déedéet demewul noonu dogoor góor a xam nga nan la moom ci mbel mi fekk moom sama xarit la ñu doon at bu yàgg mu suppeeku def tubayam def ay kii yu yuy tax mu ne ma xoolal sa sa baat bi nu mu mel ma ne ko lii laa am mu ne ma waroo am lii ndax sa jëkkër mi ngi mi ngi mi ngi liggéey te lu mu am jox ko yu jigéen ñi. du du dëgg ma taxaw ma kenn laa doxal. taxawal rek ma wax la. yaa ngi nii di di di te pare bu ma. léegi daal bii fii daal ku doon jooy. sa rongoñ dina feex alaaji góor a ngi nii déglu leen moom mu jaar ak yéen fam daan jaar ak man. waaw bisimilah. jël si leen ci Lamp Fall Bijou na fii mooy Lamp Fall Bijou daa ma dégg sama xol seetlu na doo nga xam ne di nga takk woon ba doyal yéen a moom cher de moom cher de. moom cher de non du cher. yor na mu ngi kontaanee. du cher non du cher. lu mu di yor du cher. dëgg la loolu léegi yow xam nga nooy def. yow da nga dugal benn benn page boo xam ne compte lay doon ci yow. carnet. Ah. mooy carnet. voilà mooy carnet bu bu bu genre natt daal. jaaxal na. su ko defee yow saa boo wàccatee jàpp ñëw dugal dara ma bind jox la. loolu dafay am. barki sëñ bi waay waay waay waay surprise laa leen bëggoon def góor a nii nag ku ko am loo di wax nag. ku mel ni kii ku ko am loo di wax waaw. parce que tante baa ngi waaw. moom moom daa jël moom saxal bi yow. moom soo ñëwee <laughs> waaw moom soo ñëwee waaw. dina jël sa tur jël sa sant. waaw def date ba ngay démarré. waaw saa boo wàccee loo dugal. waaw dina ko bind fii. waaw ba pare bind beneen jox ko. ah waaw bii bu bu bii bii bii bu fekkee bii. boobu daa seer boobu daa seer seer. waaw bii moom ñu ngi ci un million six cent. ah jaay mën nga ko am mën nga ko am non mën nga ko am mën nga ko am naaj naaj rek. Ah. waaw bii bii bii bii moom quatre cent cinquante. bii nañ tëb nañ tëb. bul ragal pour góor a la. moom day ma tuggul góor a lam bi langu dij bi nag. defal li ma la wax rek. jëlal li ay xamal noo koy téye xaalis la. mu noppil yow. di wax doo bay matal bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko mu tag ko. bàyyi ko bàyyi ma nag bàyyi ko mu tag ko. xoolal nit la xoolal nit kii nga ne bu bu dee bu dee bu dee góor a. ay sama ndey xoolal dee di jël. <laughs> toko wala boo ma takkalee lii ba ma dem ca àll ba nag. dira ñu naan paaya nga waaye ñu naan wala. tey ngaa bàyyi ñu négocier lab bi rek ak jaara bi. mu mu mu fetaaw bi dama koy dindi. waaw yow bii rafet na ni xool yow yow yow yow yow yow borom gis nga nii. xamal noo da ngay fay. du daal ni ma jëboot yaa ngi nii jàppale ci. jëlee eh, ci yii dafa sew. non non lii sama ko bëggoon a bàyyi ma ma tax guddi ba ñëpp xam ne am naa woon bu mag bi mais fii. waaw dama wax ne la soo ñëwee loolu bëgg di ko am. boo xoolee fii ni ngay gis a bopp. ak lam faat bi su coono jeex na. Eh, néew. Ah, am bi. Eh, wuy ma wuy ma waaw balaa bi te tekkil lii ba pare. Ah, léegi xam nga nu ñuy def. jokkoo nga war a jënd de de de léegi nag dañuy jël bi kon nan jéem a jël bi yéen bëri ngeen choix de. waaw bëri sànni benn. bàyyi rek yow wala ñuy jël bi ji wuy ma gis nga fii boo jëlee benn. boo la neexee da ngay ñëw nga changé waat ñu joxaat la beneen. ah boo ko dencee ba mu yàgg. boo ko dencee boo boo boo neexatu la. soo ñëwee dañ dañ dañ lay dañ lay. changé waat beneen fii gis naa ci sa bopp xoolatoo ko. fépp nga gis sa bopp léegi nan ci biir bopp lii laa jël. nañ bind ci biir. léegi bii nga ne ñaata lay. bii laaj ko jaay ma ensemble bi lay nekk 850. waaw 850 850 850 ci français quoi jarul ngay xam olof yow daal léegi ñëw nañ ba fii dañuy commencé natt bindal. bindal très bien bindal. alaaj alaaj ju cox. voilà bindal nga sama jabar. sama jëkkër. dindi ko dindi ko caqam bi man yi day metti sama man bàyyi ko man yow rek bii dinaa ko dindi. léegi daal alaaj yow sama nim nga te man foo deewee man dama fay crise man maa la jàppalee 1000 francs yi ci natt bi <laughs> ak loo am dugal la nee na à partir de 1000 da ngay commencé natt waaw léegi 4 millions kay ñu demee ak loolu muy seen ni yoroon naa fee ñeen ko déedéet loolu 1000 la ñuy laal ñu ñibbi ñu passé ah, ko jëlal loolu góor a oor nag nag dëgg yàlla na góor nag mu yàgg nag nag nag nag jéeg ji nag ndax xam naa ne jéeg ji moom bëgg nañ góor a xool leen sama loxo joxal kee kee ak sama baaraam jëlal jox ko jox ko téléphone am bi sonné fi yow léegi bindal ñaar la junni quatre mille wala junni junni la junni junni junni sa carnet nii soo xamee ko moo ngi ne mooy béyee am alaaji cug waaw soo ñëwee daal saa yoo ñëwee joxe mille francs waaw defe nga ne fii lu ne mën na nekk yow xewlu yàlla nga bëgg di nga am kii waaye moo di sant di nga di nga am boo dajalee rek indil yow nga am xar ubbi leen yow mën ngaa dem léegi ñu jël suñu alaaji góor a yow xoolal indi naa lay nit incha allah dafa am daayira bu ma war a dem fee d'accord ngoon fan moom laay tey rek nga ma mës a wax na lu ma neex tey rek nga ma mës a wax lu ma neex mel ni bëggu la génn wala ma dem rek léegi bii mooy sunu kii bii mooy seen page mooy sunu bos. na ko def bim bi mag de. bala mu góor yi. doxal nag ñu dem nag topp nga ma ba ba bëri or. yow góor a. na sa jàmm yàgg waay. merci beaucoup yow daal xam naa ne jéeg ji moom. man ah góor a or nii nag dinaa dugg ci dëkk bi wax wax ni nag góor a or nag. góor a or nag ku jàppanteeg moom. bu soobee yàlla sa baay waaye nag kii sa sa xaw ma sa assistante la xaw ma. dama bëgg suñu ànd bi bu fekkee dañuy ànd te duñ waxante dëgg man je préfère quitter groupe bi quoi. may ma vocal sax savoir vivre quoi c'est bien quoi. Fall dañoo war a waxante dëgg ñun bi ñuy tuut tànk ba léegi ñooy ànd mais dafa jot tay ñu wax la dëgg yow lii ñun ñun ñett ñuy ànd yow rek yaa fi def nit da ngay am ngor ci li ngay def saa yow xoolal gis nga yow da bëgg jigéen. yow ni nga mel moo ñaaw am na loo xam ne rafetul nag. du ñun dong la yem de mi ñëpp a ngi koy wax. Dóo boo xam ne moo gën a métti da ngaa yaakaar yow kese yaa dem Seras. waaw yow fii ñëpp a jaar Seras ñëpp lañ daggul le mais jigéen da nga ciy gore. maa dàqal yaa dàqale loolu wóoruma. day caaxaan man 7500 laa fay te dañ maa fekk si. mooy yi ngay def nii. yéen a ngi ba léegi ma leen bàyyi xam nga lan la lan bu léegi morom la bëgg a duur loolu affaire yi lan la lan la ñun da ngeen commencé siis wala nu mu demee noonu problème bi non si da ngeen siisu problème bi xamal la parce que booy mën lañ topp mën lañ bëgg Milkaar la ñuy topp waaye léegi yeneen la problème yow la ñuy dégg mais amoo ngor yow da ngay fekk lu nit moom sax nga ne ko coppet jël ala ko waaye néew si du man doomu la ma def tappul ma yow xamal laa bëgg doomu paa bi daa bëgg nga bàyyi ko quoi déjà paa bi mënoo bàyyi doomu yow mais war na dëgg bàyyi ko ak bàyyi ko ak laa yamale su yeboo paa bi na ma ray yow déggulu ma la bu yemoon ci paa bi rek ñu neex mais kon bi yëpp waabe la na ko. du lu tax ñu ciy wax. daal rey nag sa bakkan nag. tey rek laa jël sa bakkan. xam yow nga ne doo bàyyi sama doom ji yow. sama doom ji doo ko bàyyi. dinaa jël sa bakkan. yow maay kii jël sa bakkan yow. waroon naa taxaw comme yow amoo jom. waroon naa taxaw nañ ci dem. gis nga xam nga lu ma leen di xamal. nit dafay am waay mhm. nit dafay am idole. nit dafay am référence gis nga booy milki la xaw ma milki aar la xaw ma billaahi dinaa jël bakkanam dëgër boobu dinaa jël bakkanam ndax sama doom jii mu topp mel ni monsieur Pépé monsieur Pépé monsieur Pépé yow lii la la monsieur la bala Messi la waaw Messi ah Pepe ni mu ko toppee. waaw billaahi ma milki aar noonu la toppee sama doom bi la. wax naa ba te dégg naa nag dafa ëmbal doomi maam bi. ah maam ki ma bëggoon jël. da koo ëmbal. booy gis nga li ma leen di dénk mooy nit. sooy dund da ngay da ngay da ngay am jom tabaski bii di ñëw war ngeen a jëlee seen papa yi xar ndax duudu mii li nga koy gis nag muy toog ci ker gi jàmbaar la de géttam gee boo fa duggee da ngay xam ni fa tabaar fa kaar la mu ngi liggéey 54 xar laa fa gis yoo xamante ni benn bu ci nekk xar na 300000 boo yaa am jom boo yaay jàmbaar nit ku baax nii la war a mel nii nga nii mel ni nii la fii ma yoon bi booy marum toppal kii te ngeen am jom ah ngeen góorgóorlu. waaw ah, papa yow tamit loolu boo koy wax doo ko wax si ginnaawam boo ko waxee nii moom ëllëg moo koy xoolee tamit. man yow man yoraguma lu baax boo koy wax da koy wax bu ko defee nga mën cee jàngate. bu ko defee nga mën cee jàngate. papa doguma la sax yàlla bu la dee dog mais man lii rek moo ma war parce que damaa judd fekk samay ndey ak samay baay di liggéey kon man liggéey moo ma war du ma la xoolee bët boobu de xam nga lu may def damay fexe noo liggéeyee yow parce que moo ñu àndandoo nag mënul ñàkk mais bu liggéey jotee damay dem ma loolooy yoon loolooy yoon gis nga tey boo demee marché Thiaroye bee ba gis góor góor mais ma jógee ne ca or la loolu mu am noonu liggéey ko xamay montre bii man moom moo ma xamay liggéey ko xamay tey bu du woon yow kontaan naa ci yow nag ndax man ndekete góor a moom xamoon naa ko sube naa mariage keroog waaw <laughs> yaay laa laay la mooy ba pare nag gis nga góor a moom ndekete man xam naa ko góor daal man xolo man daal ma ma ma maa doon yóbbu bagage ah. gis ko moom oto bi këréwe keroog maa ko dimbali maa ko dimbale mu yëkkati ceeb xaw ma ne woon ko kon kon rek xaw ma ne woon kooku or lay jaay. woo na ma di ma ko wax. ba pare nag oram ya xoola palaasam ba yal na ko yàlla dafa jàmm. waaye góor or borom borom marché caaro yi. ah xoola <laughs> la defaral waaye nag war ngaa yóbbu sa seen bi. déggoo la ma màgget na li ma bañ xam nga xar yéen yooyu moo ma jàpp <laughs> mais. ko yóbboo mu raxasal déedéet damay dem jox ko beneen baa mu defaral la beneen beneen la may dóore ah waaw lii daal mooy ful la man amaguma xar la amagoo xar ah boo demee ci ah doo ngi nii di yow kay sa xar man na ba noppi. dama ko dama la kaa rusoon wax. waaw dama la yow maa yow. te man xam naa ne tamit sama xar. dara du dox di doon di bëgg mu baax rek kon neex na ma ni muy ah yaa am xar bu baax. nañ dem ba tàmbali nañ dem ba tàmbali. waaye doon bu ma fàtte nag war naa am xar de dégg nga.